je suis polygame. non non polygame xam nga c'est dans la tête je suis polygame dinaa bëri jabar dinaa bëri doom parce que jullit laa loolu yaa ngi santaan tant que maa ngi mën di yor sama njaboot di leen sàmm di leen toppatoo soxna duñu mer dama siy nekk su ma deewee li ma leen doon toppatooyee mën na mu dugal àjjana waaw mbaa ma dem ba ñaar wala ba ñett mais daal góor laa boo xam ni dama polygame parce que mag dafa mus sa wax ni ma góor su bëggee tekki ci kaw suuf day bëgg ñaari yi ma ne ko ñaari rek mun ma day bëgg jigéen bëgg xaalis ma ne ko parce que mun ma góor boo gis ci muy daw jigéen a tax muy daw jigéen jigéen boo gis ci àdduna muy daw xaalis a tax muy daw donc soo bëggee jigéen di nga nangu liggéey borom xaalis